parce que je pense que je l'ai dit, redit, redit, redit, redit à maintes mais euh, c'est c'est des moments yoo xam ne su ma koy wax sax euh, voilà c'est plein d'émotions parce que la douleur elle est toujours vivace ndax euh, dan ma tooñ dan ma fekk sama kër kidnappé ma devant ma fille jël ma euh, et voilà une fois au commissariat central au moment de l'audition conclusion amul ñu lu may wax lu du naan ma c'est à cause de toi que les gens détestent Macky Sall. ah c'est ce que l'adjudant Ndiaye moom m'a dit Mamadou Ndiaye. Mhm. et les raisons avancées par rapport à à cette thèse il m'a fait savoir que euh, parce que vous êtes bien suivi sur les réseaux sociaux quand vous faites une publication. euh, les gens aiment, commentent et partagent. Donc c'est vous qui les incitez à détester Macky Sall. c'est l'unique raison qui qui euh, laa. Mati doo ci wolof. ñun xam nga sama wax man sama tubaab xawata ko <laughs> wax ko ci waa bi ma bi ma bi ma fekkee sama kër euh, bon. dafa am jamono yooyu pa euh, loo publier woon en lan nga mujjee publier. non non non c'était depuis au mois de mars parce que bon en fait c'était par rapport aux émeutes. et aux assassinats de de nos frères. Euh, donc euh, si si yooyu laa doon revenir parce que en fait ñoom dañ doon nëbb dëgg te man du ma gis ñuy rey sama rakk wala ñuy rey sama mag wala ñuy rey ku bokk ci man di sénégalais comme man ba pare ma siy teg sama tànk surtout que liñ koy reyee jaru ko ndax euh, droit à la manifestation c'est un droit constitutionnel yow activiste nga non non non je suis pas activiste. yow journaliste la. je mais loolu mais loolu jotewul dara ak le bulo de journaliste. lii boulot activiste bi la. non non non ça na non je suis pas activiste. du ma activiste parce que hmm. gis dara di ko dénoncer parce que euh, moment boobu noonu je voyais que aussi euh, une partie aussi du corps médiatique dafa am benn position boo xam ne taxawee woon noonu ko c'est-à-dire que. li li lii xaw sur le terrain duñ ko nangoo génnee liñ ciy daw mooy ñu couper seen signal comme ni doon def mm-hmm. Walfadjri wala ñu nangu seen licence mm-hmm. donc loolu noonu comme ñoom te itam ñëpp amuñu woon accès ci ci ci ci yenn médias yi donc réseaux sociaux yi moo fi desoon pour fësal dëgg bi. Mhm. léegi bi réseaux sociaux desee pour fësal dëgg bi ñu du yor dëgg ba pare di ko jël di ko nëbb pour lat duñ ko def. Mhm. on était là pour défendre le pays. Okay. la la manifestation c'est un droit constitutionnel donc jël ko di ko couvrir wala nga ciy génnee la ciy xaw loolu fooguma ne war na mën a tax ñuy ñuy jël doomi aadama di ko jàppal benn benn haine bi ba di ko yéene kaso. ñëw kidnappé ma yóbbu ma mhm. naa ma ay. yow yaa tax nit ñi bañ Macky Sall. non ce que je voudrais savoir du ma du ma du la dagg parenthèse lay doon léegi yow ci say ci say publication yi da nga doon indexé directement le gouvernement wala. li may def mooy. Mhm. comme le parce que euh, si chef d'accusation yi ñaari jeunes yii nii moo taxoon ñu ne damay def diffusion de fausse nouvelle. mais le jeune Cheikh Wade bi nga xamante ni ñëpp gis nañ policier bi taxaw ci ginnaaw clando bi tiire ko ba mu jib xoj fekk mu yoroon drapeau Sénégal di ko def nii bon on nous avait appris en éducation civique que ni drapeau Sénégal warul laal suuf. peut-être mhm. c'est lool moo ko induire en erreur ba tax mu jàppoon xëy na bu yoree drapeau bi kenn du ko rey. mu dee le jeune de kii nii euh, le jeune de euh, maaxam euh, bi nekk kii nii bi nekk au niveau de de de Ziguinchor aussi c' était pareil mooy le jeune élève qui faisait la classe de seconde c' était aussi pareil donc ñaar yooyu noonu ñu ne ñu ne y' a aucune enquête qui peut établir que ils ont été tués par balle alors que ñëpp gis que ni voilà looloo tax ñu ne dama def diffusion de fausses nouvelles parce que y' a aucune enquête qui qui qui qui montre qu'ils ont hmm. été tués par balle par rapport l'incitation à la n mooy maanaam man maa tax nit ñi bañ ma ki Sall lan lan ma ci wax parce que boo defee publication ci Facebook yaa gën a xam ni nit ñi dañ lay suivre dañ koy aimer di ko di ko commenter di ko partager donc yow yaa tax ñi bañ Macky Sall comme pour dire que depuis quand être suivi sur un réseau social est devenu un crime.